Major Ndiaye. Euh, oui, c'est moi, Mme Collet. Vous êtes en état d'arrestation pour destruction de biens appartenant au Major je sais que ni fi mu nekkul ci jàmm. ah maa jóg nekkul ci Akun ah kon yéen noonu ngeen interconnecté ba lu ko dal nga sentir ah loolu moom kontaan naa ci man de ma ans am kàttanu bëgg ni ngeen di bëggante yi moom kontaan na ci Dor xalé neex na de. Abdoulaye man je parle sérieusement de. bu ma ko wol sa téléphone s'il te plaît wala ma jël sama bos ma woo ko. comme loolu la mooy dalal sa xel xaaral ma woo ko loolu am na solo yow moom sama xarit ngay doon. décroché wu mi ngi solee rek décroché wu. mais xoolal dalalal sa xel. doo essayé xam naa ko ku dem ma ngay nelaw xam nga bët moom bu réeroo rek añ comme du nelaw guddi bëccëg gi dina nelaw loolu rek la du la ne. pourquoi tu ne me salis pas sama loxo dafa set. on a amené djondaye Ndiaye. Madior Ndiaye. ok récupère-moi son portable sa montre ses pièces son argent Je vais ma ko ci mbaaru xar A à vos ordres, chef. Agent fait? Prenez place, s'il vous plaît. tu sais Major Ndiaye papam dafa am Khalis. c'est un gars très riche fekk kañ taxaw na au lieu de koy dugal ci mbaaru xar le aménager ma bureau que bàyyi ma ko faire. d'accord chef. vous pouvez disposer. merci chef. waaw maa ko coupé nañ bàyyi Idiop yaat ci biir Idiop fis fanaan commissariat bu suba bu suba Idiop yaat génne xaalis ma jël sama commission. yaay yow ëppal nga de. kan nga waxal. yow laay waxal sama jëkkër ngay fanaan loo commissariat yaay yow xam nga ne yow maa dama ko bëgg te dañu waa marié. Tu te rends compte non mais. te lan laa la waxoon. ci lan. néew ma la woon jigéen ji yërëm góor góor dina ko mbugal nga taxaw fii naa ma damaa bëgg maa jooju ñu ñaar diggante jigéen ak góor geer la ci aadama ak awa te ba léegi nag waaye da nga fàttali ma la waxoon ci mbiru faj ñaay donc fàtte kay. Nakapinawa na mga pagkumayo. Bulfati di man sayay. Di labag. Kumayo, kumayo, nyan, nyan, nyan. Kinta ko niya ko sila. réglementée. li nga def dafa yéex tekkil verre yi tekkil pape bi tekkil bi monsieur Madior vous êtes en garde à vue. je suis en garde à vue. oui. donc war naa mën a un avocat comme ni mu ko loi sénégalaise bi maye. Je nga droit woo un avocat mais suba tu peux l'amener. il faut que nous def très attention parce que Madior Ndiaye dafa xam ay droit am nee na ñu wol ko avocat am il faut ñu respecter procédure bi bala ñu ci am problème. <laughs> agent Faye dossier bi du àgg tribunal ndax ki mu yàqal xaalisam rek la soxla te gis nga buñ ko fi fanaanee la di si demee su bàyyam ñëwee dina génné xaalis. en tout cas il faut ñu def très parce que ci presse bi lañuy liggéey té mën nañu ci siwol siwol hmm. effectivement ñom ñaar ñep ay hommes de presse lañ te seen problème mën nañ ko régler seen biir donc ils vont régler le problème entre eux. Sí, man, damen diabetik. Genau. Damen diabetik. gis nga boisson yi ñox boisson sucré liñ ciy def ci suukar dafa bari waa dëgg la dafay bari suukar te suukar su bari lu jara itu la loo ko mën a wàññi rek wàññi ko del wàññi suukar di def sport boo mënee daw ngay daw bo demé bu mënatuloo daw ngay dox ba sa yaram tàng. Mhm. wàññi suukar si. suukar de baaxul. ah jabet feebar bu du wér la. Mhm. feebar bu du wér ke dang nga koy moytu rek xana xamu jor man ni ku bëggon ñam wu neex la surtout bu amé sukar daaw ma ci doyal moo taxit gis nga lim ma indi. waaw la gën a mën a sànni. jabet baaxul baaxul baaxul wàññil suukar bu baax. d'accord Pape Birahim damay commencer jàng nag. xool sa jabet bi lan lay bëgg ak lan lay bañ comme ça ma mën di toppatoo bu baax. ah yow yow sama xarit ngay <laughs> ko. Maajoor waa man ma defee noonu Maajoor jubóowu leen ndax euh, si sëy ñaari sëy yi ma bëgg a takk loolu tax ma ñëw fi de. <laughs> waa dëgg la de au début moom nangu ma ko woon. mais nii waxtaan nañu d'accord naa amul benn problème. ah nangu nga. nangu naa comme ça bu ma takkee ma nekk ñaareel xaritu jëkkëram. ah ak xaritu gorom. ah day fay gën a neex rek. <laughs> Eh, alhamdulilah lii day wane ne jigéen ju baax nga day wane ne ku nangu nga te jigéen day nangu boo nangoo. rek say dom barkel lool nak bala nga koy xam say dom dem ba mag té nak jor wujé état d'esprit la bu ko ragal yow dal sa bu duggé sa nek na doon sa far doon sa xarit doon sa chéri bu ko bañal dara sa jëkkër bu génne na doon sa sang sang nag ñépp a koy bokk kenn du ko aaki moom li nga wax lépp d'accord naa ci te nangu naa ko tamit mais man aussi dama am benn faveur bu ma la bëggoon demander en retour. sama yaay amul ku dul man maag moom kese la te xam naa ne bés bu ma sëy ji woon. bàyyi ko fi moom dong dina wet te dina metti ci moom moo tax ma la doon ñaan bu fekkee ne mën na nekk bu mu maajoo takkee bu may sëy si ma àndaaleeg moom alhamdulillah lii day wone beneen qualité boo xam ne am nga ko mooy fonk ndey fonk waajur donc dangay ngay fonk say waajur boo fonkee sa ndey loo def mu barkeel te loolu ngay ñaan may naa la ko na ñëw sa yaay na ñëw keneen koo bëgg sax na ñëw xamoo sama kër ga li ma njëkkoon a nekk dafa wéetoon waaye mel na ni mi léegi mu léegi wéetaay bi dañ de ngeen ñëwee ñu doon une grande famille doon ben mu doon yaay yaama ak ba yaay jor ak jor ngay dess na nag papa ma jor ak ma jor monsieur l'agent <laughs> il faut rendre ma service je dois appeler ma femme pour wax ne maa ngi fi tay bañ ma inquiéter wu commissaire dafa joxe eh, ordre oh. te du ma si teggi dara nee na nga bàyyi ba suba nga woote kon bàyyi ba suba fekk dafa am leneen loo soxla nga fëgg Ça va, vous allez bien Ça va bien. Vous allez bien Si. Après, ça m'a mis Ah bon Ok, merci. jël 5 millions jox ma 5 millions pardon dégg nga lima wax da nga jël 5 millions jox ma 5 millions yow xala nga fàtte li sa def sama bureau et après sagaasé sama bureau toj sumay matériel toj sama ordinateur nga ñëw dama wax 5 millions yow da nga see jot ma tegal la dil bu leer nañ boo yaakaarul woon dili millions nga taxaw fi dama wax 5 millions et après est ce que xam boo ne tribunal

Saya bi bilang nga def. maa ngi rek na nga def soxna. sant bu udah, sant. udah ah yow de wute wute nga ak yor mënu mo woon na wax sa sa yaay la. <laughs> waaye gis nga du mag de. ba pare jog nga ma. dégg nga. <laughs> yow dina fi dégg si waat de. ah paa bi naan kër gi sa kër la ñëwaatal dina la xaar. xam nga lu ñuy def soixante quarante. dégg nga. je t'emmerde nga man da nga jël soixante yow foo teg loolu.

ma Madior Ndiaye tey may monte garde si guddi dinaa la may nanga woo sa soxna mais def ma ko ngir pour dara nag merci monsieur l'agent boo bëggee sax mën naa la jox numéro monsieur li business la dans matière de business Il n'y a pas de sentiment. temps est time is money Il faut que faut fanaan jàmm. non vraiment du nit quoi. bonne nuit. je sais que les règles, la mal. et je suis prêt à assumer les conséquences. mais s'il te plaît.

Madior woo naa ko jotuma ko yow ma wala nga décroché ba pare wuyu ana Madior. Madior dama yaakaar ne dafay nelaw ci néegam mu ci kaw. nelaw bu heure bi en bu fekkee ni jóg ne ko suba à la première heure soxla naa ko dama am moom waxtaan dégg ah, yow sax sa sañ sa métti fan nga jëmoon fan nga demoon sa black and white baax na. dama yi woon doxaani ay eh, tonton <laughs> ana pa ak doxaani xanaa hmm, pa bëggul dara <laughs> xoolal yéen xale yi bàyyi leen paa yi ngeen bëgg a rey te su dee suul leen te deewuñu paa yi faaw ñu dund en daal dafa mel da ma doon jàppale ci black and bi te black and baax na kate ono major kañ nga dof bay ya? doore ak koo doo major lan ya? kan gak doo major lu muy kan nga doo Ousa Sow bu grand buzz laa fekk borom sama Maria ak yaama Ousa mau pilih sama Maria mariage ak yaama nga fekk birom dóor ko mais major rezon. Sama Maria a raison sa mariage ak yaama mau la moo tax mu lan mo xew ki deug doo nga la bind lolou motax nga andi sama problème bi ni bañu andi la fi tek la fi jor la gars il a raison bu may def lolou ànduma ak sama sago je voulais pas de perdre motax ma def lolou et boo gisee ma woo la mun ma fanaan fii gisuma la yow kese fana laay fanaan ak yow yow kese xalaatuma laa bàyyi fii. non non non fii commissariat la munoo fanaan. sëñ bi fii laay fanaan gis nga kii sama jëkkër la xalaatuma génn di ko fi bàyyi moom dong mu fi fanaan. sama patron deful dara fii laay fanaan. sama yow nekkul sa patron ak say sanction bàyyi ma bu ma laal kii deful lu ngeen ko fi téewee. fii lay ma sama sa chef lu sama sa chef na la je m'en fous ci loolu kii deful dara fii lay fanaan ba ci fii lay fanaan moom ba fajar jot wërsëg moom fi tax a génn boo bëggee ma génn nag may lay ba pare génnee sama néew mais pour man dong du ma dox di la romb fii lay toog

waaye mosuma gis ku bëgg nit ba si biir kaso